nañ fii xel dal na fi ndax kat lu waay wax wax wax xam ne élection bu ñëw honorable Abdou Mbow mooy gagné centre bi. waa jàmm gën dugal nañ ko seen biir xol donc fii sunu xel dal na fi xam ni incha allah au soir du 31 juillet on va gagner largement à Diamaguène Pape Diop gagner largement à Cité Senghor Ablaye Dieye gagner largement à TVF mu mën a jël ndam li teg ko ci loxo président Abdou Mbow mu jox la tête de liste départementale Augustin Tine jox ko ne président Idrissa Seck mu jox ko le président Macky Sall élection yi élection Macky Sall la parce que gis nañ li mu liggéey ci réew mi donc il faut que ñu am conscience xam ni nañu moytu nit ñi jaxase di wax nit nag boo xamee ni sa njariñ dang nga koo téye da ko war a continuer di téye te njariñu réew mi mooy stabilité du Sénégal jàmmi Sénégal parce que jeunesse mi li ngeen bëgg président Macky Sall rek moo ko mën a def parce que gis nañ jéego yi nga xamante ni def na ko ci emploi des jeunes si formation mais également si éducation parce que tey suñu frère bii di Moustapha Diagne si éducation la nekk tey moom bu doon taxaw fii di wax réalisation li président def si wàllu jàngale donc je pense que ni loolu kenn du fi jóge donc nañu amaat conscience voter massivement euh, le 31 juillet pour que ñu mën a am ndam fii ci jàmm gën am ko président Abdou ñu ngi lay gërëm bu baax vraiment da ngeen a am loo xamante ne nag man de bu ma sañoon ma am ko cité Senghor ga mu dëkk muy ngeen am seen doom seen frère seen càmmañ seen ndijaay mu nekk premier vice président dëkk bu nekk soxla na ko vraiment loolu dafa jar tiitër dama ni nekk leen benn. ñaanal ko mu gën a am ndëgërlaay mën a gën a jàppale jàmbagan mën a gën a jàppale ASC bi mën a gën a jàppale waa Thiès mën a taxaw ci soxla yi waa Sénégal. may nuyu bu baax Ablaye Dieye sama frère sama xarit ma koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bi mu am ci Thiès nga xamante ni social fu ñu dem ah, vraiment comme li Abdou waxa ni Abdoulaye Dieye il est incontournable. ci langue politique gi kon Ablaye vraiment ñu ngi lay sant bu baax Abdou vraiment sant nañ la wax ji du mën a gudd liñ leen di wax comme am na message yu am importance defe naa ni fii ak ñaari fan kenn mënu fa yàq seen xel Abdou dina ci dikk leeral ko ba nga xamante ni ku leen wax lu dul voté marron woote fas wi loolu wax ju yàqu la ah, déglu naa leen bu baax mais di leen wax ne engagement bu ma jël dinaa ko respecté waaye bu ma jëlul je le respecterai pas donc il faut que ça soit clair entre nous et bu neexee yàlla suñu paree suñu toogee waxtaan en toute lucidité ce que je pourrais faire je le ferai parce comme ni ma leen ko waxee dans la vie il faut être courageux vous êtes courageux moo tax ngeen taxaw fii di wax e vous savez bien que seen mag la seen nijaay la ñenn ñi seen mag la e personne je dis bien personne ne nous fera flancher sur nos ambitions ak sur nos principes je veux que ça soit mes amis je vous remercie grand maa ngi lay di la remercier parce que mag nga moo tax nga defar yéen aussi maa ngi leen di remercier di remercier ñëpp on se donne rendez-vous le dimanche soir à 18h pour voir les résultats je vous remercie